asiko la ñu bëgg gaana asiko la ñu bëgg gaana asiko la ñu bëgg gaana asiko la ñu bëgg gaana asiko la ñu bëgg gaana asiko la ñu bëgg gaana amuñu asiko gaana amuñu asiko gaana amuñu asiko gaana asiko la ñu bëgg kaana Asiko la ñu bëgg kaana Asiko la ñu bëgg kaana Asiko la ñu bëgg kaana Gana Jamana yaay sama reeni xool Gana foo ma woo bëgg naa foo ma woo bëgg naa bëgg naa kaa jege si ma ganna jambara ya sanorane ko ganna ganna ganna gana dañoo sonn si loolu lañ bëgg gana. mais tax dañoo sonn ñu tubar gana. 어! 어. doxal Tanda ñëw na sécurité doxal Tanda ñëw na sécurité doxal Tanda ñëw na sécurité doxal Tanda ñëw na Monsieur Gamma Kébé wetul. Monsieur Gamma Kébé. Nanop, nanop. Thank you. Let's go. s'il vous plaît rapidement ah, donnez-nous jox allocution yi parce que nous allons présenter joueurs M. monsieur Aimé mi franchement on attendait que Lissal oui hein? un grand promoteur un responsable politique très connu dans le département de Kermassar, nous voyons le dossier de jëf hein? un acteur social incommensurable uh-huh. man exemple là ci Mani, il faut nous wax ko bu le defal lu baax

acteur social. Mani li ngay def ci lu baax dafa doy war. Mani oui. est-ce que xam nga ne il fut l'ancien capitaine de l'ASC. Euh, Doomu Africa. Doomu Africa Doomu Africa oui c'est lui. il était l'ancien capitaine de l'ASC Doomu Africa. mais bien sûr. est-ce que yéen nga ni stade stade bu nek bu ci dar ca Daara euh, nu mu tudd. Ah, ah. euh, Sangalkam non non commune de communauté Hann Paul Niak. Ah, moom mi moo ko moo ko créé. doy na waar. c'est lui l'initiateur de ce sax. loolu bettu ma ci moom. damay nañu koo pare est-ce que du sax ren la démarrer gànnaaw kañ lay préparer, kan lay démarrer. Hein? Il nous le dira tout à l'heure. Ah, il nous le dira tout à l'heure. Il nous le dira tout à l'heure. Donc aujourd'hui, euh, son excellence, le président Macky est très présent. Nous le ñaan nga ñaanal Vous mu Je mais Kala Kala. monsieur Gamé quand je dis le monsieur eh, eh oui.

Nous avons M. monsieur Ebe la ñuy jox Grand tube, et puis nous dem rapidement s'il vous plaît. s'il vous plaît rapidement comme nous avons fait un lady, dañuy woo le Messie de Jeff comme je l'appelle le grand donateur le monsieur acteur social qui couvre tout le département de Kermassar, qui couvre tout le département de Kermassar, je dis bien tout le département de Kermassar. Je six communes vous oui nous appelons ici monsieur Gana Kébé s'il vous plaît sous vos applaudissements standing ovation là-bas.

ñaari yoon la la wax li ya tax may moolu de fuma dem wax ko fa damay ragal na nga jóge fii gars commencé ma laaj sa numéro <laughs> du ma ko joxe salaamaaleykum et eh, voilà on va donner la parole à monsieur Gana Kebé, le monsieur de jëf lu s'il vous plaît votre attention après moom rek dañuy dugal présentation joueurs yi moom rek lañ doon xaar s'il vous plaît grand Aidé mooy doxal loolu

Ah, di am mbégte bu mag a mag nag ci ASC Farba bi ma jox occasion wu ma toog fii jàkkaarloo ak ay waa far Farba mën naa waa yëmbal ñi nga xam ne gëj na ñu ci bari gëj nañ gisante ak ñoom. en tout cas président maa ngi lay sant bu baax président Bouba Boubacar ak grand Ibra ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ku xam far ba xam leen ci daf lu baax. xam ci loo xam ne chaque jour dañuy bàyyi seen lépp ndax ASC Farba ASC Farba tamit nekk mag ASC boo xam ne ASC bu mag la ASC bu gëm boppam ah xëy na mën na wax ni Gana ba tey mu ngi ci département wu Kër Massar loolu dafa leer Gana Kebe yëmbal la dëkk mais mu ngi ci département wu Kër Massar xëy na ASC Farba nag bu organiser lu mel nii may ñu chance ñu fi gis ay suñu grand ay grand jibi ay ay ay nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla xaw naa gëj a gisanteeg moom mais ba tey rek da gis ni rek euh, ASC ba moo mën lii. lii am na am na yu bari yoo xam ne mënuñu ko organiser parce que bu ñu ko organiser du mën a mel nii. waaye tàccu leen loolu waay. kon ASC Farba kon maam Gana Keye bu ñëwee fii duñ mën a def lu dul jaajëfal leen am kontaante bu mag a mag ci yéen di leen wax rek ni ah maam Gana Keye bi ne mu ngi ci département wu maanaam jiite mouvement bu ñu wax faj mbébétu askan bi. faj mbébétu askan wi. loolu rek lay def faj askan bi nag a ah, ñu ngi koy dégg ci département département Kër Massar yëpp mun nañu wax faj mbébétu askan bi mu ngi ci national. très bien. ah di wax rek ni ASC Farba ah Mame Gana Kébé ñëw na ak du Moussa Diop te taxaw na aussi pour jàppalante ak ASC Farba. waaye tàccu leen noonu waaye s'il ñu neex fii so maa ngi ciy escorté parce que président ASC la daaw man maa jël kon ñun ñoo ngi ci escort Farba ah moom daanaka Kébé ñëwaat na nekk partenaire encore partenaire sûr et bien maa ngi leen dégg sànq bu ñàkk rob ñàkk rob la stade bi nekk oui iya. ah ñàkk département wu Rufisque la bokk mais mën nañ wax ne Niakoulop ak euh, département wu Kër Massar benn la. effectivement. kon suñu nekkee foofu xëy na mën nañ nekk nekk ci gaynde yi nga xam ne dañoo jóge woon yëmbal pour gën a yokk ci département bi. Mhm. ah kon stade boobu ñuy tabax dañ ko tabax pour Sénégal yëpp. très bien dañ ko tabax pour Sénégal yëpp. ñu ngi lal loolu waaye les acteurs du ñu ngi lal présentement gazon yi am yaakaar ni d'ici le 30 ah xëy na mu ngi des ci maire bi nga xam ne moo nekk foofu pour ñu livrer. gazon bi pour ñu mën a démarrer nawetaan yi kon yaakaar naa ni département wu Kër Massar ah sanc sens la mën nañu fubalee foofu. en tout cas ñu ngi leen di sant bu baax aussi ñu ngi leen di gërëm bi jëgal nag sama imam bi nga xam ne moom mooy secrétaire général ak Yacine. Yacine imam ah bokk waa bokk ci faj mébétu askan bi. très bien ah ñu bàyyi yitte yëpp wax dëgg yàlla pour ànd ak man fii ci département bi. fii ci Kër Massar rawatina ci fii ci Farba fii ci caa yëmbal bi nga xam ne mën naa fi bi ma nekkee amee cinq ans laa fi nekk. yow ko yóbbu wuyu yow yaay neex a àndal. ah dëkk nag biir Farba mais nag daan football doomu ASC doomu Africa <laughs> kon suñ fi ñëwee dañ fee war a ñëw kon bu ñu fi woowee tamit dañuy bàyyi yitte yëpp ñëw mën a gën a jëmmal bis bi. aussi lii ngeen initié ñu bëgg ASC yëpp di def lu ni mel parce que ASC Farba moom lu mu defee gars yi topp bon yàlla dogal noonu. loolu dafa def gars yi fekk si ko toppatoo leen <laughs> kon ñun xam naa ni bon c' est ASC Farba la. Farba la ay jëleen loolu. mais lii dinañ ko sant yàlla parce que léegi nag ASC Farba jël na sama joueur bu ma gën sama capitaine. loolu wax dëgg muy Thiam. Assane Mbaye ji. Ah? nga jël sama capitaine muy Thiam. en tout cas ñu sant ñëpp nag wax dëgg yàlla di jégalu bu baax a baax a baax di sant xale bi gën a tuuti ba mag mi ci gën a mag jigéen mag ndaw ñu ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di wax rek Gana Kébé rakk la mag la. Ah, doom la fii ci dëkk bi dëkk fii pendant des années kon xëy na suñu ñëwee fii dañ fa war a ñëw ah ñu ngi leen di nuyu bu baax nag ah ñu ngi leen di sant bu baax di nuyu bépp supporter ASC Farba di ñaan yàlla mébét bi ASC Farba am ba organiser li fi ah na leen yàlla may ay ndawi ndawi ndam waaw buñ bañ tasee final départemental ah ngeen bàyyi nag jël ay département yu bari. ah ah, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah en tout cas ñu ngi sant ñëpp. waaw dinañ laaj supporters yi. dinañ laaj supporters yi. non waxtaan bu jubóo lay doon rek. bàyyi ñu laaj supporters yi rek. Ah. en tout cas sant nañ leen gërëm leen Xaadim ñoo ngi leen di sant Talla ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey ci mouvement faj débétu askan bi waa poste courant ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax di sant ñëpp wax dëgg yàlla jërë ngeen jëf. merci beaucoup merci beaucoup le leader de mouvement faj débétu askan bi kontaan nañu dañuy woo président Cheikh Tidiane Sène moom mooy président. yóbbante supporters yi la te su ma ko waxul supporters yi duñ ma ko baal. oui supporters yi nee nañu aja aja, lihat na moom itu ñu duggee ñu koy wax mi ngi koy pas kita boppam. bon dama ni parce que waktu may wax ci asiko eh, eh, di wax rek ni dégg naa loolu bu soobee yàlla daal la ak mu jox jox asiko. à part que taala sama njëriñ mu tëggee asiko bu soobee yàlla. parce que loolu sama participation ci asiko moom ren di am asiko bu soobee ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbọn ló gbé sí i. 会追赶我，我会追赶我，我会追赶我，我会追赶我。dinala tacho, dinala waya. Thank you.

ak sa waaw yàgg a baax na waaw ren nag Fall yaram ak sa dama ñëw ay say farma Fall yaram ak sa eh mais Thiam attention Thiam bàyyi guma la de mais Thiam nga ci kàddu kebe ñëw ci farma Thiam ñoo ebe dañoo ci digg bi caméra yi am ko. waa programme studio ñoo wax loolu. maanaam dama bëgg rek ngeen xam ni kii Baye Fall bi la. xamuñu ragal xamuñu yoo xam dañoo ñëw ngir maanaam lu ñu fekk Farba. buñ ko soppi seen saa barke maam Serigne Fall. barke Serigne Fall. dañoo bëgg waa Farba ñu. barke maam Serigne Fall di ngeen kontaan. barke maam Serigne Fall.